yéeg si leen ak jàmm ci Pastef Média TV les jeunes des patriotes abonnez-vous dal leen ak jàmm yéen mbokk internet yi baaxoo di sifur Pastef Média TV la chaîne des dañuy taxaw foofu dal di lay ñaan bu dee gan nga ci paas bi te abonné nga dal di abonné tëbës kolos de notification bi ngir bépp information bu dugg rek nga doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a ñu ñëwati ci benn jàngan boo xam ne saa yu ne yéen a ngi koy taaxirlu muy mbir mi nga xam ne moo xew jamono jii ci kujjeg politique gi rawatina ñi nga xamante ci ni kat ñoo bokk ci côté njiitul Pastef di Ousmane Sonko muy ki nga xam ne moom moo di Aïda Mbodj gannaaw ba ñu arrêté ñu baree bari ci groupe bi nga xam ne moom moo di Pastef àddina bi jug na ndax dañoo bëgg a tas Pastef ba tey jii njiitul Pastef di Ousmane Sonko defagul benn déclaration ci loolu Aïda Mbodj sax moom keroog ba ñu ko invité ca carte générale muy TFM mu ngi yëkkati ay kàddu di wax ne moom du ko bett benn yoon ñu di ko arrêté waaye moom gëm na ne Ousmane Sonko atum 2024 dina jël réew mi ma di leen di xamal ne Ousmane Sonko moom bu doon mën nañu ci moom dara ba tey ji jàpp nañu ko waaye nag xam nañu ni bis bu ñu ko laalee rek mooy dal dinañuy taal réewum Sénégal te dootul fay nag ba àddina ndax kat danañu xam kan mooy Aïda Mbodj nekk na benn nit boo xamante ci nii fulla rek la am nee na nag kóolute ak yéeg-yéeg rek moo ko dal di bàyyi ci njiitul Pastef Ousmane Sonko ma di leen di xamal ne nag saa yu ne ñu ngi dal di ay arrêté ay militants ak ay sympathisants ak ay patriotes yoo xamante ci kat bokk nañu ci groupe bi la di Pastef te ñi ñuy jàpp nekk nag ay kàngam la ñuy doon yoo xamante ci nekkat nekk nañu ay ndaanaan yoo xamante ci nii mën nañu li ñuy def mën nañu seen liggéey alal ñuru leen li leen ñoon mooy di defal seenum réew ñi nga xam ne mooy démocratie bu Sénégal ñu dal di koy respecté Ousmane Sonko ba tey jii ñu koy xaar ci ay déclaration yoo xamante ni am nañu yaakaar ne bu Ramadan bi jàllee kat dina ko di jël ndax xam ngeen xat-xat yi nga xam ne kat moo koy songu fii ci Pastef Média TV la chaîne des patriotes dañu lay ñaan bala ngaa dem nga dal di abonné te bës cloche de notification bi ngir bépp vidéo bu ñëw rek nga doon ki nga xam ne yaa koy njëkk jotu jotu Pastef Média TV.